bismillahi rahmani rahim sabaha lillahi ma fi samawati wala huwa al-azizu al-hakim lahu mulku samawati wala yuhyi wa yumiit huwa ala kulli shay'in qadir huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin huwa bi kulli shay'in alim huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa ala al-'arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum wa aynama kuntum wallahu ma ta'maluna basir lahu mulku as-samawati wal ardi wa ilayhi turja'un yuliju al-layla fi an-nahari يولج النهار في الليل وهو عليم بذات السرور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد خذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات يخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا قريبا قريبا يوم ينزل المرء ما قدمت يداه wa yaqulu l-kaafiru yaa laytanii kuntu turaaban bismillahi rahmaani rahiim wan-naazi'aati gharqan wan-naashitaati nashtan was-saabihaati sabhan was-saabiqaati sabqan fal-mudabbiraati amran yawma tarjifu r-raajifa tatba'uha r-raajifa quluubun yawma'idhin waajifa absaaruha xaashi'atun yaquluuna a inna la marduuduuna fi lxaafira ida kunna idaaman naqira qaalu tilka idan karratun xaasira fa innama hiya zajratun waaxida fa idaa hum bisaahira qaala tilka xadiisu muusaa iz naadeehu rabbuhu bilwaadi almuqaddasi tuwaa idhab ilaa fircawna innahu tagaa faqul hal laka ilaa an tazakkaa واهديك إلى ربك فتخشى فاريه لا آية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر ويسعى فاحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقنا من السماء وبناها رفع سمكها فسواها بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون bismillahi irrahmani irrahim inna actaynaaka alkawsar fa salli rabbika wanhar inna shaanika huwa labtar bismillahi irrahmani irrahim qul yaa ayyuhal kaafiruun laa acbudu maa tacbuduun wa laa antum caabiduuna maa acbudu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 innahu kaana tawwaaba suratu lahabi makkiya bismillahi rahmani rahim tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghni anhu maaluhu wa ma kasab sayasla naaran dhaata lahab wa mraatuhu xammaalatul xatab fi jiidiha xablum min masad suuratul ixlaasi makkiya bismillahi rahmani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam walam yakul lahu kufuwan ahad suuratul falaqi makkiya bismillahir rahmanir rahim qul a'uuzu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq wa min sharri gaasiqin idha waqab wa min sharri naffaasaati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad suratun nas makkiya bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم ci fàttali at mu jot dana am ay maam jaara yu bàyyeekoo ca poroxaan ngir ñëw fii nga xam ne moo di ci Touba Mbacké ngir jury bi daal di leen déglu saytu xool ndax mokkal nañ mokkal gu wér laata ñu leen di jox seeni lijaasa ci teewaayu kilifa yu takk lool ginnaaw ñeent fukk yi nga xam ne ñoo mokkal alxuraanul karim ba tari ko am na ci juróom benn maam jaara yoo xamante ni bind nañ kaamil alxuraan